nii ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy topp ci King Taalif ñu indilaat leen tey histoire bu am solo lool bu xoromu lool ci ki nga xamante ne moo doon joxa boroom xel mu ñaw mi ñu indilaat leen ci muy ñaareel bi mu doon histoire boo xamante ne nettali bu xoromu la lool. Juxa dafa doon nit koo xamante ne xel mi dafa ñaw lool waaye nag dafa am bis mu daal di dem ca marché ba. bi mu demee ca marché ba nag nga xamante ne daf daa nekkoon ci ay wàllu jëndam ak jaayam am benn waay joo xamante ne moom la fa dajeel waa ji daal ku mën a tooñ la lool waaye nag bi nga xamante ne kii nga xamante ne mooy joxaa romb na ko rek mu daal di xàcc ba mu sës rek daat koy dóor aw mbej bi mu ne ko fuuf mu daan ne ko waa lii nag mu daan ne ko waay jugal fii nga naan lii nag nga xamante ne nit ñëpp daje naan ñoom ñaar ñu nekk fa ba bëgg a jàppante nga xamante ne doon na lu metti joxaa lool ñoom nag ñu daal di wax ña fa nekkoon daan ne dem leen ci diw mu àtte leen ndax fii lu fi mas a am moo leen di àtte waaye nag bi ñu waxee loolu ki nga xamante ne moo ko dóoroon aw mbéj dafa daal di wax joxaane ko suñu demee tamit yow yaa fay des du mujj fenn ndax waa jooju noonu doon àttekat dafa mel ne dafa doon mbokkum ki nga xamante ne moo jàpp joxaa daal di koy mbej ñoom ñaar ñu daal di ànd daal di dem ca waa jooje nga xamante ne moom moo leen waroon a àtte bi nga xamante ne nag dem na ci waa ji ñoom ñaar ñu daal di dem bi ñu leen laajee nag li nga xamante ne moom lañ jote ki nga xamante ne moom mooy joxaa daal di leen di nettali ne ko man kat kii dama ñoo dajee ca marché ba xaw ma lan laa ko def mu xaj ci ba mu sës dóor ma aw mbéj ma noppi nag ma wax mu daan ne ma fuñ mën a demit du mujj fenn bi mu waxee loolu nag ki nga xamante ne moom mooy waa ji daan ne ko ah. loolu la la def mu ne ko waaw mu daan ne ko ah loolu kay xam nga ne ak tooñ magu ko nga xamante ne nag ñoom ñaar daal dinañ ànd daal di dugg ci biir bàyyi ki nga xamante ne mooy joxaa ci bunt bi nga xamante ne kon loolu du lu dal xel ndeke ñoom ñaar dañoo nekk ci biir di wax seeni wax ngir noo xamante ne dinañ fexe ba waa ji dem ñu bàyyi ko fi nga xam ne ñoom ñaar du ñëw duñ ñëwaat ñoom ñaar bi nga xamante ne nag dañoo nekk ci biir daal di wax seeni wax ba noppi bi nga xamante ne nag wax nan seeni wax ba noppi nag daal di génn ci biti bi nu génnee ci biti nag fekk ki nga xamante ne mooy joxa daal di taxaw ki nga xamante ne nag mooy àttekat bi commencé di piis waa ji waaye lépp moom joxa mi ngi leen gis waxu leen dara mu daan ne ko waaw comme moom mii dalaa tooñ lenn dong mooy mën a nekk xam nga ne tooñ moom kenn waru koo def moo tax nee naa ko na dem wuti cent mille nga xaar ko fii ak fu mu fu mu ko mën a amee ji na ñëw daat la koy fay ndàmpaay ndax tooñ baaxul te koo xamante ne magum jëmm nga ñu fekk la nga taxaw ñu lay dóor aw mbej fuuf xam nga ne loolu kenn lislaam santaane ko kenn santaane wu ko waaye nag joxaa xelam ñaaw na waxu leen dara dafa daal di toog di leen diglu mu daal di piis waa ji bi mu ko piisee nag moom gis na leen mu daal di bàyyi waa ji waa ji daal di dem bi mu toogee ba nga xamante ne naaj na joxaa daal di laaj ki nga xamante ne mooy àttekat bi ne ko waaw waa ji moom dadul ñëw mu ne ko toogal xaar ko rek dina ñëw xam nga ne lim la def moom di force mu fay la cent mille waaw ndax fii moom képp koo xamante ne mbéj nga fi nit moom cent mille franc nga koy fay bi mu waxee loolu nag nga xamante ne joxaa dem na ba mu naaj lool xelam mi daal di ñëw ci ne waa ji kat da doon teg ak diil kii ndax lan moo tax ñu bàyyi ko ci bit te dugg ci biir ñoom ñaar doon wax bi nga xamante ne nag dem na ba nga xamante ne dafa daal di sonn dafa daal di fekk ki nga xamante ne mooy attakat bi daal di taxaw mu takk ay weer dal di kaalawu mu xëcc weer yi rek kaala gi daal di fële mu xëcc mbax mu xëcc kaala gi daal di dali fële weer yi dali fële mu daal di xàcc ba mu sës daat koy dóor aw mbéj ne ko fuuf daat koy mbéj ne waat ko fuuf waa ji ne waaw lii lan la mu daan nag ko ah comme mbéj cent mille la moom cent mille yi déewu ko dara saa yu waa ji ñëwee na la daal di jox cent yi nga daal di koy jël waaye man maa ngi dem lii nag mooy fulaay jaay daqaar jamono ji boo nooyee bopp wala nga yërëmtalu wala nag amoo ay bokk dañuy jaar ci sa kaw jàll nappaaje la def lu leen neex waaye bari na mbir yoo xamante ne fula moo la ciy jàllale